koro gay modum gej o Haj ibrahim gay tay jile ci lañu tollu ci wiras bu mujj bi fukki fanu goral ci safara mo dess ci koro ren gile fukki fañu mujj yile ci la guddi gu gën junne wer nek lelatul qadri takat fukki fan yile lu julli don jaamu yalla da ko wara ful ngir dajeeg bes bobule o dg café wuko organisé wuna bu baax tek programam ngir matal koram ci mukayam tay jile baxna imaam Cheikh Ahmed Tidiane Aliou la seeti ji comme xam na waayam jile ci la ko dalal ci saalam foofi la toog te kurusam kilim bi du ëpp looloog loolu DG di xoggale ko rek teg lay tànk taal tele bi jàpp Al Jazeera Haj Ibrahim heure bi mel ne luy waaxu simileeg saa tisbaar jot DG moo ci nar a dal kon tisbaar jot na ay de muur muraake la yëguma dara ci koor DG na muy waxee xelam imaam génn rek te ci loxo bi jumaa ji la ko jël jëmee DG daa génn rekk naaj bi tàngal bopp bi mu joxe ngant <laughs> damaa fàtte yeeslu maa ngi ñëw maa ngi ñëw dil ba dal na delwaat na ca saal ba imaam dem dikk xaaj ibrahim <laughs> naka mooy noppi rek ci laa dégg gorka di la xam ma xam ne laataa ma yegg rek ñu sulmal ba foofu jullee fii <laughs> imaam ah waa baax na macha allah julli mbooloo daal bokkut ak julli benn nit ne gën gi min def ne salaatul jamaati afdalu min salaatil fadli bi sab'in wa ashrina daraja julli mbooloo ëppee na julli kenn nit ñaar fukk ak juróom ñaari daraja farlu <laughs> <laughs> dégg naa o oh, xaaj ibrahim naka ñu toogaat tuuti rek mu daldi forbët ñu teg ci ay simili imam génnati takkusaan DG AR da ya, ngay demaat yow nan ngaa sonn de kon julli juróomi nii ngay baagante lee war naa nun sama bopp de noonu lay akbar xaaj ibrahim ku julli mbooloo ci jumaa day bokk ñu sun borom di keral yowmal qiyaama te yoolug julli mbooloo mooy yoolug nga fanaan julli guddi gi lépp te kat da andi leer gu mat sëkk yowmal ne malaaka yi ñoo la koy seedeel DG <laughs> am na solo macha allah o xaaj Ibrahim soo ko waaree rek mu daanu tax mu ànd ak imaam nara julli ji tàkkusaan daa génn buntu kër gi rek naaj bi jamaat ko mu fakkas salu xaw tuut weem mu jël temps ci suuf imaam continue yoonam DG delluwaat na ca saal ba bandab tànkam yemu ca comme borom connaissance la daa woote rek hôpital imaam Assane Cissé docteur Ndiaye dal di ko fa yebalab agent naka mu xool ko rek ñamal ko benn pikiir o oh, xaaj Ibrahim Gaye noonu la nekkee toog ci saal bi rek nodd gi bër DG përëxëti <laughs> jàpp naa ko en ordre alhamdulilah yàlla du ma seetaan o oh, DG félicitation ñu teg euh, ndogulu bakkane DG di muuñ rek ne xol bi sedd na xaaj Ibrahim di waxtaan rek <laughs> li nga doon wax ci jullit mbooloo ceet su ma génnee fii tey dootu ma ko tardé du ma am solo waaye tàkkusaan bi sama pakka solo bi métti woon na jaay yebal na fi benn médecin pikiir na ma moo tax ma tane ni la <laughs> imaam Haj Ibrahim sa kooruk tey jile faw nga fayaat ko médecin bi la seet waroon na laa laaj nañu ndogu waaye su weeru koor gi jàllee da fayaat bés DG <laughs> fayaat bés imaam <laughs>